asalaamaaleykum gars yi comme d'habitude képp koo xamante ni abonné go gan nga ci page bi duñ la wax lu dul nga abonné te di partage vidéo yi di ko sem tey dama ñëw pour wàll ni ñuy defee dépôt ci wàllu Xbet comme naar bi fan yee dépôt bi da am nu mu ko doxalee woon maanaam boo tujjeewul sa téléphone ak doo tujjeewul application wan Xbet bi ak sa numéro Orange ne bi ngay defee dépôt doo mën a def dépôt te léegi loolu dindi nañ ko boo ñëwee dugg ci trois yi boo ñëwee bi encore une fois abonné leen te ngeen partagé vidéo bi ah oui c'est simple boo ñëwee ni ngay def boo ñëwee da ngay bës Orange Money Orange Sénégal léegi nga bës sa numéro bi nga bëggee def def par exemple ma def soixante dix huit quatre cent quarante quatre soixante cinq soixante sept nga def numéro boobu léegi dépôt bi yokk nañ ko yokk nañ montant boo seetloo montant bi yokk nañ ko mu ngi quatre cent cinquante francs te bu njëkk quatre cent la woon dañoo message sur affaire bi moo tax bu fekkee quatre cent a def sept cent cinquante fekkee cinq mille nga bëgg a def dépôt da ngay def nii nga def cinq mille fu mu yam foofu la xaalis bi yam deux zéro yee bokku si léegi fekkee cinq mille laa bëgg a def dépôt ni ngay def exemple man cinq cent laa bëgg a def dépôt xam wala dépôt quatre cent cinquante francs la commencé 500 laa bëgg def dëpp ma def numéro bu ma neex numéro bi nga xam ne moom nga bëgg a def def boo ñëwee nga bës Orange Money mooy lu ñuul yi Orange Money boo ko bësee nga def fii numéro bi votre numéro de téléphone nga def comme ça numéro bu ma defoon naa ko sax 78 kana 444 65 xamatuma sax lu stop mais ngay def numéro bi boo xam ne moom nga defoon fële moom ngay defaat fii mooy numéro bi nga dem si app si téléphone boo xam ne mooy orange téléphone si pis orange bi si numéro bi ngay dem nga def ko dièse cent quarante quatre dièse trois cent quatre vingt onze dièse nga def loolu boo ko defee nga tappe mu dem ñu indil la benn affaire ñu indil la benn li nga def sa code secret envoyé bés mu dem dina am benn code bu ñu lay envoyé code boobu moom ngay def fii code validation bi la boo defee fii code bi rek code bi yaakaar naa six chiffres lay doon ma def code bi rek bés ba defee code beneen poste mu def yaa ngi gis code bi nangu de jàll moo tax code bi baaxut te numéro bi tamit baaxut awa abonné encore une sama gars yi